bisimilah alhamdulilah sant yàlla alhamdulilah bu baax a baax a baax a baax a baax jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yow mi ñu mayaat ñu teewaat fii ba mën a jàkkaarloog sunu soppe yi ba mën a leen a bégal waaye xam ngeen ni tey bu ngeen ma gisee ma mel ni kuy waaja a taal sama avion dem damay waaj yóbbu soxo ak kan xale ca ca mbéy ñu def shopping jënd ay kirdan jënd ay ay ay jënd ay mbir jënd ay ay ay ay yëf daal yaa ma gën a xam jënd bagage yu baax a baax waaye loolu mënta ñàkk bu mënta ñàkkit ngeen xam ne tey heure bi jot na cinq heures jotati na lem gi ñu segg booleeg meew fii lay amee ci ne neex ci lan ci biir 2STV luy naaw a neex a sànni te ne woon naa leen biteel la mu def rek la saañ bay xeeñ waaw boo bëggee tooñ boo bëggee jooy dangay ngay tooñ ku la mën loolu laa leen wax waaye nag 2STV yi xam ngeen ni duñ ci ñaaw mukk di sant bu wér alaaji Mama Ndiaye mu baax mi nga xamante ni nag mooy bàyyi Papa Ndiaye ak Abdou Ndiaye ak Cheikh Anta Ndiaye di ko bëggee gudd fan ak wér lañ koy ñaanal ak tel ak fekkee waaye nag di gërëm ajaratu Ndiaye sàmm mi nga xamante ni yow yaa fi muñal baam ma Ndiaye ba xale yi naan ma Papa Ndiaye doo morom doo maas yaay sama sëriñ sukuraam naa ajaratu Ndiaye dundal loo dund doyul waaye ajaratu Soda Mama Fall mu baax moomu dundal loo dund doyul ah, papa Alaaji Ndiaye nag gudd fan ak wér ak talak fekke la lay ñaanal ndax yaay jàmbaar yaa liggéey woon ba samp fi lii ba ku ne mën fee gis sa bopp yaay booy yaay ma Ndiaye yow it xaadi woo dawoo benn yoon ba lii mën a taxaw na sa jàmm yàgg laf cat gërëm sant ñeen na leen ngeen warte ci 88 628 14 13 tey nag dañoo dellu ba Nigéria vaccin amatul dara xew barke bi ah? Sofia xala tete mbéri li nga vacciné tiim oho waay waay wàññi leen waay ñëwal waay daagul à l'africaine waaw waaw à l'africaine nee naa ma dama wuy saa su nekk sama tur Sofia xala tete mbéri à l'africaine waaw laal teint noir rek du neex fas yéene tendance an teg tey sama rakk ji nee naa fi ñu toll nii ñuul yaa ngi bëgg rey ñu xees yéen da ngeen a bëggante di ngeen tendance <laughs> dama ko yëngal so fi nga ne lan <laughs> mais nuyu naa la Ndiaye moon naa la yow saa su nekk damay am mbégte béggee boote naa la euh, di partager yow li nga xam ne mooy plateau bi waaye du nuyu sama rakk bopp bi nga xam ne nee naa la bokk ma ko kenn moom itam bokk la kenn ki nga xam ne mooy xale ci cembere waaye c'est un réel plaisir ah ma ñëw fi nga xam ne mooy la 2STV saa su nekk ñu jàkkaarloog yéen ci li nga xam ne mooy rendez-vous bu mag bi après la détente divertissement dëgg du neex mu wuyu turam muy émission na neex nag waaye nag nuyu ñi nga xam ne ñooy waa kër gi les stars de la télé les hommes de l'ombre ñoom ñooy les techniciens bàyyiwuñu kenn personnel 2STV bi yëpp nañ leen ah, wax dëgg yàlla di nuy sunu yaay tata Marème Ndiaye neexiree waaye suñu papa fay fàttewuñ ko benn yoon di nuyu waa kër gi yëpp yëpp yëpp di nuyu kilifa diine kilifa aaday fépp fu waay mën a nekk ci Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziar rek wax dëgg yàlla di leen si ci ñu daal di waxtaanee li nga xam ne mooy li xew ci réew mi. loolu mënut a ñàkk xale ca ca waaye xam nga ne alxamis yi duñ ci wéet ma ak yow. borom jeudi beek amoo ànd ak borom Kastoor borom ah, Medina borom Dakar borom. xale xew Saapa yaa yaa waaw waaw. ci eh, laaj ndax naar la wala xale baa ngi nii kii kii saa wax leen xale baa ngi <laughs> <laughs> moom xam na li may wax. waaw baadu kot la double daane ah. <laughs> waaye double daane waay doo dem. kat la. merci beaucoup Papa jaay maa ngi lay nuyu di la jaajëfee di nuyu sama mag ji Thiam Babel Demba Thiam nee naa la man dama lay nam damay toog des fois sama xel di ne ci yow sama xol bi yow yaa ci fees. dañoo bëggante di nuyu Ndiaye borom double daaneel bi. yow xam nga benn daaneel laa xam yàlla bu ma xamal ci àdduna. bi ma juddoo ba tey benn daaneel laa xam barki démb laa xam ñaar te moo ko fi. bàyyi ma nuyu di la jàngal <laughs> salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte ak contentement di jàkkaarloog yéen ci télé bu mag bi nga xamante ne mooy la 2STV la première chaîne privée du Sénégal di nuyu waa kër gi techniciens yi di nuyu euh, suñu yaay Mariam Ndiaye ak euh, El Hadj di leen ñaanal yàlla yàlla nañ fi yàgg lool te wér amiin amiin mënta ñàkk gis ngeen euh, sama rakk sama doom sama xarit borom double daane noonu noonu la ma tuddee noonu <laughs> waaye Sofia tey xam nga ne du yomb. déedéet du yomb ndax tey dama ndaale kii sama casque bi damay dem après ñëw sol ko. ndax li ñu war a waxtaanee casque. te daay duggagul de. casque yi rappeurs yi sol laa. ah d' metti waaw comme que léegi dañuy ree na dëgër rek. man yooyu rek laa sol <laughs> protégé wu. <laughs> protégé wu fépp waaye mënta ñàkk ngeen dugg ñu waxtaanee ko waaye balaa ñoo dem fenn dañ leen di may alaaj Youssou Ndour mu baax moomu du ko bégalee Sénégal gépp ak waa groupe na neex tàmbali leen ñëw ñu jàkkaarloo fa laale sànneeku seen xol seet ba mu gëndaa ndaat ñu seeti sëñ Fallou ànd ceeg papa Youssou Ndour bisimilah jàmm la macha allah sëñ Fallou yàllaa ko ko may lu mu wax rek mu am bu ne loolu la rek loolu la bu ne mu taw mu taw bu ne du taw dootu fu taw sëñ Fallou daa defare ba ñuy defaraate ñu ngi koy sant di gërëm Youssou Ndour waaw waaw barke yonent bi yàllaa ko ko may di bëggee képp kuy taalibe képp kuy jullit ñu ziar bu wér a wér waaye tey Sofia rek duñ mën a tem ndax suñu temps bariwul loolu la wage wax nee na tey invité bi dañuy jéem a dugal rek après waaye ñu waxtaan tuuti rek ndax jamono ji euh, namante woon nañ ac waaye namante rek damay souhaiter un joyeux anniversaire à ma moitié mon frère mon confident mon tout sama tofo euh, mu nekk sama mag nekk sama compagnon franchement ci li ma yàgg nekk mu yàgg ma cee gunge yàgg ma cee épaulé yàgg ma cee jàppale ba ñëpp ràññee nañ muy Issa Laye sama mag maa ngi ñaanal sa bés bi nga yàgg koo féete ay at yu bari sa mbébét ci man xam naa ko sa mbébét ci say waajur xam nañ ko yàlla na la yàlla bàyyeeg ah wax dëgg yàlla sa njaboot ba sa li nekk sa xol mu daal di antu ba nga mën a wax dëgg yàlla jàppale ñëpp parce que sa yaatu na euh, laa biir nga te taalibe nga taalibe nga ah yàlla na la suñu borom defal jàmm frangin mag ji mooy Issa Laye waa ci wax ma taxaw mm-hmm. tubaarkalla allah mu nekk mag ju baax du mm-hmm. mag Sofia moom rek mais suñu mag la parce que daf ñuy taxaw côté bu nekk bi ñuy dem Touba ñun ba ñu dafa dañoo dem ba pare moom mu soog a dem. ndeysaan amul place mu soog dem. <laughs> noonu la mel ak samay nit def nag lu dul di ko ñaanal mu yàgg ko fekkee yàlla may ko wér gu yaram. ba keroog tey ñu koy koy may fii jabar. waaw dëgg du yaa koy <laughs> a njaay kafe njaay. <laughs> laay barka baay laay. laay jàpp naa dine ma laay. happy birthday. laay laay Isa laay. laay laay Seydina. laay jàpp naa dine ma laay. ngi lay ziar di la fan wér ak tal ak fekke ak mboolem jullit yàlla bu mujjee kii waaye li gën a garaaw bi gën a garaaw ba gën a garaaw mooy Mamadou Yatassay mi ñuy gunge ndox ah. ñu wax leen ko ndox mi manqué na waaye tey la happy birthday. ndeysaan ah tey la sa birthday. tey la tey la tey la anniversaire ah, tey nan daanaka daa mel ni le 21 le 20 ñu baax ñi rek a ci juddu. ndeysaan macha du neex ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy lu producteur local. Mhm. macha allah dëkk ci réew mi defar réew mee ko gën macha allah Mamadou Yatassay yow ñu ngi lay ñaanal rek yokkute parce que ñun suñu fierté nga parce que fierté sénégalaise nga wax dëgg yàlla. yàlla nga yokk daal dëgg du neex. borom Aquaterra Aquaterra du ñu def lu dul sant ko di ko gërëm parce que moo fi def lu fi kenn deful ndox bu ñu mën a naan mu ñuy faj ndox bu indi seddaay mel ni clip waaw du ñu def lu dul di ko ñaan bu am tuuti parfum wala waaw bu am parfum nag am xet gu neex <laughs> waaw waaye lii moo lay wan ni preuve la <laughs> ndax nekk ci télé bi di jaay sa yëf ba muy manqué ba ñun ñu koy joxe sax amuñu ko waaw ñun amuñu ko tey dëgg du neex waaye du ñeem foofu ndax l'international Kara tey la happy birthday. ah macha allah waaw suñu waajooju nga xam ne doomu yaay Matar Diop. Mm-hmm. waaw kookoy Serigne Fatou Mbaye. Mm-hmm. bàyyi Karamu Ndaw. turandoo Cheikh Madou Karam Mbacké Noreyni. moom moo am ñett ci këram. barke yonent bi macha moom dañ koy wax rek euh, dundal loo dund doyul. Mm-hmm. suñu yaay di te mbuur a liggéey lii. waaye nag loo ko gën a fonk doyul. loo ko gën a jaamu doyul loo ko gën a tarbiyu doyul mm-hmm. ndax sa euh, ku fi baax rek jigéen nay sa yaay waaye yaay ju baax a noppal doom doom ju baax a noppal yaay mm-hmm. yow fi mu ne nii waxuma la loo kojji mm-hmm. waxuma la loo xool waxuma la loo placé waaye bal boo yor rek ci biir la jëm <laughs> Seydi Fatou dundal sa jàmm yàgg balaa ñu dem fenn nag damay dem euh, seeti Wally Seck rek doo ko ñëw dugal sama invité ñu daal di waxtaan ak moom direct rek. atia nañu ah, dugg direct mën naa ñëw de sunu sunu waa ji nga xam ni. moom ay seytaane romb nañ waali ñii romb nañ ay sumay seytaane <laughs> bu ñëwee dañ may yëgal di ma tux waaye tey moom damay gën a raakaaju Sofia. waaw dëgg du neex. ndax ku nekk dañ ko yakkal ndabam ci benn anam. loolu moo ah. am ndaxam. loolu moo am bu génne ndabam Papa Ndiaye xam yow. man damay xam ni WhatsApp yow. <laughs> damay big wage <laughs> booy wage. le grand réalisateur booy wage yaa ngi cënc waay. Eh, booy bu represent Géejawaay. waaw come on my friend. waay the best of the best. Yeah. the best of the best oh, yes. yeah. the best on, of man. the new generation. yes yes yeah. yes. yow ça man aywa bu rëy kii. yegg si the best in the building. yow bee dëgër. maa ngi lay ziar. yeah the best of the best naka mu. ça va. nice maa ngi cool. yaa ngi cool. ñu ngi lay ziar. delloo ziar. ma bàyyi la ak Sofia. ayca kii mooy the best of moom As ñu ngi koy nuyu di ko ziar mu nekk un jeune très très très talentueux euh, muy euh, un élément de la banlieue noonu lañ koy mën a waxee saa su nekk ñoom dañu nekk fierte ci fi nga xam ne fa luñ jugee précisément à Guédiawaye en the wax dëgg yàlla nekk un jeune. international franchement tey di ngeen gis découverte boo boo xam ni wax dëgg yàlla di ngeen ni lii ah Sénégal dëgg du neex la musique sénégalaise est en train d'évoluer mhm. rawatina ci hip hop bi nga xam ni ci lay ci lay yëngatu mais The Best dañ lay bàyyi rek nga nuyoo ak ñi nga xam ni ñooy say say téléspectateurs waa Sénégal maa ngi nuyu gars yëpp mhm. di di leen jaajëfal yéen mhm. ak Papa Ndiaye Sofia ak soxna maa ngi leen di remercier si seen invitation bi ngeen def nii bon du nuyu képp kuy bëggee Arche de Best ak képp kuy déglu Arche de Best. mais de Best xaaral sama fi toll nii sama sama te xam nga fi ñu toll nii da nga koy toj. Hmm. danga nga koy toj te Sénégal Ndiaye mi dañ bëgg di la découvrir dëgg bu ah, neex damaa bëgg nga wane sa kanam oh. ah gars da nga koo yëngal ba bëri doole mhm. waa géej waay ñu moom ah, ñu nekk nga nekk un jeune artiste un mhm. rappeur euh, nga donn ko ci li nga xam ni mooy euh, sa parent mhm. macha allah mu nekkoon sa idol aussi de par ses pas nga commencé li nga xam ne euh, mooy passion musique tey mu dem ba dëgg yàlla nga jël li nga xam ne mooy musique di ko exporter à l'international c'est pas évident mhm. euh, un jeune sénégalais qui euh, qui travaille pour son pays et mhm. macha allah ñu bëggoon xam rek turu The Best bi fu mu jóge en fait bon The Best bi mun naa ne bon man H la tudd mhm. donc The Best bi mi ngi jóge ci ay freestyle yi nga xamante ne dama ko daan def souvent géejawaay et su ma daan dem ci freestyle yi dama daan dem chaque fois as the best am the best voilà léegi. the best c'est le meilleur voilà. ah mooy original. mooy le ah. waaw. Hmm. da dem géej waaye daal daal di yëngal. non mun naa ne the best bi si ay freestyle lay jóge mhm. donc man ass laa tudd sama vrai nom. Mhm. donc as bi moo dem collecte the best bi the best bi mi ngi jógee ci fans yi donc du benn tour boo xamante ne dañ ko créé mais milieu bi moo ñu ko imposé quoi. Mhm. mais yaa ngaa ko beneen de lu seen problème. amuñu benn problème. <laughs> à travers ce talent. <laughs> ku la wax mun a problème. ah gën non boy bi dafa am style bu particulier boo xam ne fi mu toll nii euh, day dafa dafa ñëw imposer boppam depuis 2013 mu nekk ci li nga xam ne mooy musique bi mhm. tey gis nañ wax dëgg yàlla mooy li mooy faral di wax rek euh, mhm. mag ñi nekk ci li nga xam ne mooy scène sénégalaise bi euh, ñoom amuñu temps sax lu ci bëri di génne li nga xam ne mooy album mhm, mais étant jeune liggéey na ba def li nga xam ne un album de 16 titres 15 titres waaw benn bi bënu mu nekk loo xam ni forcément c'est à féliciter parce que comme ni ñu wax rek liggéey rek am solo ci li nga xam ne mooy li ngay yëngatu teex loo ci xamul il est international. massa coono lan la ci wax. ndax mhm. yoolu yombul ñun xam nañ studio xam nañ li ci bind xam nañ financé. Mhm. massa coono frère. Mhm. yàlla na ko yàlla inspiration boobu noonu fan la la dikkee ak pourquoi le choix de faire un album très de 16 titres c'est pas évident lu yombul ci li nga xam ne mooy du ma ni doog a démarrer sax mais euh, pratiquement ci découverte lañ toll nii ci yow. Mhm. ok bon boo gisee lu tax ma génnee album c'est pas parce que dama dooj wala dama yàqamti. Mhm. mais dafa nekk benn affaire boo xam ne dafa nekk si ñun bii ko ni ñun genre man si musique laa màggee. Mhm. sama papa ancien guitariste baat la ci benn groupe reggae bi ñuy wax ñoominka bi. donc fa laa commencé di xool affaire yi donc mu ñëwee ba 2014 2015 man ak samay frères dañoo def suñu yëfu bopp. mooy que dañoo créer suñu structure bopp au lieu que ñuy dem di signer ci benn label ak affaire yooyu noonu donc ñu ñoo créer suñuy affaire bopp amuñu limite donc tout le temps dañu nekk ci mhm. mhm. mhm. bu ñu ñëwee ba benn période. ñu ne pourquoi pas ñu wane suñu job parce que bi booba léegi ñu ngi toog nekk ci benn euh, rukk di job donc c' est très normal ñu génne suñu job Sénégal teg ci bët. parce que un album de 16 soxo jàkkaarloo moom. soxla am lu mu waaye rappeur bi dafa xaw a ragal quoi. dafa xaw ragal waaye rappeur day xaat koot waaye dëgg du neex ah. del dégg dee mu xool bët si <laughs> dafa lay napp de. <laughs> ñoom ñu <laughs> yàq di am mbégte lool ci sa teewaay ci plateau bi. nga xamante ne mooy euh, Nanékh man nag sama question lenn la mooy the best dañ ko gisagul ci rappeur yu maju mhm. parce que gis nañ Samba Peuzzi tey gis nañ ko mu def. Mhm. kii ak. Euh, featuring ak euh, Dip mm-hmm. gis nañ ko aussi d'ailleurs moom ak euh, nu mu tuddati Bastion ñoom ñaar am na lu ñuy waajal mais pourquoi pas yow doo dem ci milieu hip hop ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw seeni ay mag pour nga mën a mm. bokk ci ñoom ba ñoom tey ñu yëkkati niveau bi waxuñu niveau bi yéegul mais tey ñoom ñoo la mën a yëkkati parce que ñoo jiitu ci rab mm-hmm. mm-hmm. loolu lan moo la ko teree def parce que il est temps aussi bon depuis 2013 loolu loolu yaa ngi ci nekk quoi man maa comme ni nga ko waxee donc peut-être amoo benn suivre gars yi moo tax mënoo ma xàmmee ci biir gars yi mais sama récemment sama dernière vidéo bu ma def maa ngi ko def ak Dip Doundou Guiss mi ngi tudd Ndogal donc avant loolu yàgg naa dem ci yenn festival yi donc yenn gars yi nga xamante ni dañuy suivre hip hop wala ñu ngi si milieu bi xam nañ ma mm-hmm. euh, loo gis étape par étape la et que mënuñu ñëw rek defandoo lépp ci benn kii dañuy par nànk comme que instant bi suñu promo album lañu nekk peut-être mm-hmm. Mm-hmm. di wéyal li nga xam ne mooy waxtaan bi allo allo. allo waaw. booy Fane. ah man yàgg naa fi ñun de. waaw ah, Baye Boy Faat nag dañuy xajal ñeneen ñi say nawle fi ne tamit nag wala boog. waaye man avant émission bi du commencé laa nekk si lii. waaw yow kay sa crédit jeex na de ambassadeur. <laughs> waaye bul wax loolu ah. ci loo waaw maa ngi nii rek. yaa ngi cool. waaw maa ngi cool bu baax. yaa ngi koy yëg bu baax. bu baax a baax. tey affaire de xaat kot lañu woote de mais sama waay dafa xaw a sedd torop. l'international sedd quoi waay. ah Boy Fane yëngalal ma ko waay. dama dama jaxaseeg moom Boy Fane dafa yëngal ay. yëngalal ñu yëngalal ñu the best. ah. yëngalal ñu sunu invité bi. non day wax loo ko wax loo ah, ko day wax de. Ah, ni Papa Ndiaye quoi. waaw mon frère. yokkal leen ñu tuuti. waaw ci loo ne. ma ne ci loo ne. yow avant ñu commencé boo nekkee ci ligne bi buñ duggee looy ay <laughs> ayca Papa Ndiaye ñu ñëw ci li nga xam ne euh, bu ñu xoolee ci musique sénégalaise da ngay euh. gis euh, tey artistes yi ñi di def mbalax. Mhm. am nañ milieu bi nga xamante ne foofu lañ leen leen fekk chaque week-end vendredi samedi dimanche mais rappeurs yi amuñu loolu. Mhm. ah da rappeur yi noonu ñu amee loolu. non a faut ñu am loolu day dëgër. football ñu gagné leen day dëgër mënuñu ko am xale yi bëgguñu leen. te ay <laughs> woykat ngeen nañ leen de ñii. yéen ay woykat ngeen da ngeen di rap c'est très rare ñu gis euh, rappeur buy tegle ay. imposé wu imposé wu. Mhm. tey rappeur yi lan la ñuy xaar pour def loolu. Mhm. ñu nara dugg alma di ne kii kat fii lay tëgg tel jour kii mooy tëgg tel jour kii tëgg tel jour mais gisaguñ ko fi. bon man si sama gis-gis dama jàpp ne que industrie bi moo amagul doole noonu. et que euh, bi amagul benn niveau bi wala du ma ne sax amagul benn niveau bi mais damay damay damay jàpp ne que milieu hip hop ak milieu mbalax c'est pas la même chose. bi di la rey ci suuf nii. nga bàyyi lu muy wax nii fi toll nii. mais mais Bouba daf ñoo yab daa ñëw ne leen kii sax moo leen daw dëkk boobu. non am na dëkk bu mu leen ji. mais li mu mën a def mbalax mënu koo day yeete. man xam naa lépp ay paroles yu dëgg la ñu wax. mbalax si dëkk bi la mbalax suñu tradition la culture dëkk bi alors que ne rap gars yi ko jëlee ci feneen indi ko fii di ko imposer si dëkk bi donc mënul bokk niveau ak mbalax bi mhm. tey jii benn euh, c'est pas benn âge wala benn dip ak benn ngaax euh, ak mënuñu concurrence ak benn waali ci côté boobu mhm. parce que waali tout le temps mu ngi c'est pas fi muy joué noonu chaque samedi ak euh, côté hip hop parce que déjà ñun suñu milieu bu ñu nekkee dafa bëri ay détails ya nga xamante ne bokkul ak benn mbala metti de ñii non pas metti sax mais euh, c'est pas la même chose quoi mhm. parce que mbalax bi lu ma mën a def si dëkk bi bokkul ak rab boo xoolee rab bi moo a peut-être mën a mhm. même benn accessible pas benn bomb rek mhm. léegi ñii laaj lañ la ba nga sonn est-ce que sa baat neex bon man xaw ma sax Ndiaye nag maa bëgg a way la may ma ci Seyra Fall rek loo ma may way wala rap ci Seyra Fall rek loo ma ci may baax. non na rab rek na rab lu ah. sentir rek loo sentir rek. bon c'est pas xaw ma na laa koy defee mais yow la nga gis ma def. non non loo sentir rek yow. sa ménagère am ma la laaj loolu rek. ci maam Cheikh Fall. fu la neex rek. fu neex rek loo sentir. sa benn bit rek. bon benn morceau damay damay impro quoi ok ah. on y va. let's go. Hmm, bon. maam Cheikh Fall. maam Cheikh Fall ku baax la. Soro maam Seera Faal jàmbaar la maam Soro Faal maam Soro Faal kamaal la maam Seera Faal maam Seera Faal jàmbaar la Soro Faalo ma déggan dem ba. <laughs> daal bi toll nii bu ma ñëwee daal. Ah, yow fi ma fëlee ak fu ma nekk sax ah. yow est-ce que xam dara. Hmm. dama lex dara de. Mhm. boo dul dem di fréquenter gars yi doo yëngal de. rappeur du am kersa parce que en fait bàyyi waxu kersa ak ay affaire de kii c'est que bokkul quoi nit. ak il nga yëngal nag. non man ni ma mel ak yow ak kii kii bokkul. waaw léegi kon may ma benn rap bu tàng may ma benn rap. <laughs> mais essayé doo leen teg samay extrait balaa extrait da ngay live ñu xam ne yow mi soxor nga Ndiaye Ndiaye bàyyi jaamur. mais eh, ma damay bañ fi dugg fii wax yenn détails nga xamante ne. déedéet détail la. Eh, ay rapport lañ dem boo leen yeewee des fois day saal. Mhm. des mun na am yenn affaire yoo xamante ni wax ko si émission bii nii est-ce que. duñ ko nangu parce lu mën a dégg est-ce que. déedéet ñun xam nga fi. loolu moom dëgg la moom ataaya ak bii ak jàmm moo tax man la bokkul quoi ak tarka mbax ci ndiriñ. day <laughs> dëgg rek wax na ko nañ dem seeti sa benn clip ñëwaat ci tarka mbax ci ah. doog a ñëwaat waxtaan ak yow let's go. mais kii du tarxal ndax tindirin eh. moo cay fanaan moo yegg si waat nañ si biir kii bi ma bàyyi waat la ak Sofia mu sànni la alors une très belle vidéo riche mm -hmm. en en couleur allah gis nañ ni léegi franchement sénégalais yi ñi ngi commencé yow ci li nga xam ni mooy décoru musique rawatina clip vidéo yu ñuy def ah félicitations c'est une très belle vidéo mais moom ni mu mel studio ak ni mu mel ci bokkul c'est que noonu fi toll ni daa mel ni moom mbootu waañ la quoi bu génnee lay yëmbee cour bi rek bu duggee di toogaat fi toll nii bi da listé encore une fois. Mhm. mais ñu gis nii rek yow participer nga ci li nga xam ne mooy ñaari concours nga dem ba final. Euh, malheureusement nag mooy loolu mais parce que c'est pas évident euh, mm-hmm. nga dem ba final loolu rek ndam la mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla ñu gis ni peut-être aussi war nga mën a def ay sorte yoo xam ni comme li la kiy wax sànq rek def ay mm-hmm. featuring pour gaa yi gën la mën a xam am gën a am visibilité voilà gën a am visibilité yi def bruit parce que milieu bi nga nekk moo tax hardcore bi il faut nga koy yëngal pour ñun ñi gars yi xam voilà talent baa ngi ci yow macha allah te fi ñu toll nii géejawaay moo koy yëngal géejawaay moo ko yëngal. donc voilà moom mooy yëngal li nga xam ne mooy. géejawaay non foofu non moo ko yëngal de. zabes moo ko yëngal de zabes. ngaaxa bon xaw ma sax yéen loolu lañ gis. <laughs> yéen a yëngal bu leen ma jaxase bu ma jaxase kenn. Sophie waaw ñu ne nga ne. ayca léegi ñu bëggoon xam rek euh, ci ci ci euh, par rapport ak sa label international est-ce que aussi ñoom ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi def sa promotion comme il faut. Mm-hmm. parce que yaa ngi bokk ci li nga xam ne mooy label international en France. Mhm. mu nekk loo xam ne wax dëgg en collaboration ak benn label bu uh-huh. nekk France bu mhm. tudd Icop Musique. Mhm. benn waa ji sénégalais la mais foofu la nekk di job ak ay tubaab donc man ak moom ñu nekk en collaboration. est-ce que mi ngi lay mettre en rapport ak peut-être ay euh, artistes français. foofu pourquoi pas Dadju am fitu voilà xool les supérieurs quoi. bon bokkul quoi yéen parce que yéen <laughs> xam na laa leen ko mën a voilà yéen fi ngeen. lëbal ba bëgg a yóbbu waaw. voilà Sénégal dafa am wax ñun du ñu yam ci fii nii rek dañuy wax ci kaw. te loolu tam vision wax nii rek après lu nekk seen xel mais affaire yi bokkul boo leen xoolee. par étape la moom laa doon moom laa doon kii nii. donc mënoo ñëw ci benn affaire commencé rek egg benn niveau bi. lépp loo gis dafay am commencement. mais bu ñu xoolee bu ñu xoolee 2013 ba 2019 bientôt 2020 jël na temps de. bon imagine 2013 li ma ci def yëpp def naa ay single génn naa benn série freestyle génn naa sama album 2019 participé naa ay concours def naa donc diggante 2013 ak 2019 am na benn am na leneen nag leneen li nga ma def si diggante bi toogu ma boobu def am na loo def mhm. mais artiste a ànd ak safara quoi mhm. alors kon <laughs> bàyyi sama lan lañ mën a xaar ci li nga xam ne mooy album bi c'est déjà sorti bon lan lañ ci mën a xaar parce que de 16 titres du loo xam ne ah, caaxaan la yombul yombul bi mi ngi tudd million flow mhm. d'abord boo gisee le million flow boo gisee ma tuddee album million flow parce que yéen boobu léegi nag maa ngi ñëw ngeen may catégoriser comme hardcore nii ak nii donc man artiste la en général je fais tout pas lépp lépp mais album bi dama ci boole couleur yu bëri am na acoustique. mais bi moom gis naa la nga way ci sax. am na jazz voilà am na am na reggae am na am na am na touche yu bëri quoi déjà looloo tax ma tuddee affaire bi million flow pour wane ci biir projet bi million euh, plusieurs styles diversité musique bi quoi voilà c'est ça mooy plusieurs styles bi ngay gis ci biir projet bi donc pour yenn gars yi jot déglu projet bi ñoon xam nañ ci dara. du benn nag dëgg la li ñu laaj ak li ngay wax daal. léegi li ma la <laughs> bëgg a laaj mooy ban ban tour nga am ci YouTube bi pour ñi lay ñi lay seetaan nii bëgg a découvrir say bagages ndax yaa ngi ne yaa ngi am ay bagages. waaw sama nom de scène ah. H The Best la A S H S The Best comme. comme nu ñu koy bindee en anglais. yaa ngi dem ci podium gars yi bi donc tax ma ne ñu nekk ci milieu bi wala yenn grand yi nga xamante ne ñu ngi si biir kii bi xam nañ ma wala xam nañ sama liggéey. donc bokkul ak benn Papa Ndiaye bi nga xamante ne moom ci côté mbalax bi la nekk donc mënul xam as tant que. dëgg la dëgg benn kii bi quoi voilà. Mhm. mais macha allah. ni nga mel bu ko changé. Mhm. ndax def rap. rapport tak nga rambax mhm. def rapport tak ci ci ci studio bi la ko wane sax rapport def mhm. nga mel na neen mhm. li nga yaroo nii yàlla moo la yare ni ak say waajur man j'aime bien ni nga mel bul ma sa classe bul ma sa wax lu ñaaw ndax da ko fi bàyyi lu fi des la félicitation amal jàmm ca kaw ca kanam looy tàggoo bon di jox gars yi euh, euh, neneen Million Flow disponible na partout sur plateforme yëpp en même temps mi ngi disponible ci seen en physique aussi disponible na donc euh, di wax gars yi ñu dem déglu projet bi. préparé woo benn date. pour def ko promotion album bi maa ngi si promo mhm. album bi. Mhm. donc mënuñu ñëw rek. Euh, après la quoi voilà étape par voilà donc. Euh, di jox gars yi rendez na leen ñu dem ci sama chaine mhm. wala Instagram partout fu ñu mënta dem projet bi disponible na si plateforme. koy remercier bon maa ngi remercier sama équipe. di la remercier di remercier sama waa gaale samay waajur maa ngi jaajëfal ñëpp di ba xam nga ni sunu réalisateur de la fin ba gëmeew la. Hmm. moom il te suit ah wake. waaw d' hmm. sa copain. voilà ñooñu peut être ñoo nekk ci milieu boobu. voilà ñoom ñoo mën a xam âge uh-huh. wala ñoom ñooy <laughs> pas benn Safia wala benn non tout ah yow man ngay man sa xarit. waaw borom double daanaka waaw. <laughs> mais kontaan nañ kontaan nañ frère yaa fi jaaroon mhm. léegi nag ñu dem euh, rési mhm. euh, def clip rek di la ñaanal jàmm ak képp kuy sa morom rek yéen ñëpp bonne continuation mhm. dawal leen géral de nii bu la kenn changé bul topp cee ak soxo et rési ñu dem daa ko wala ñu tàggoo lu leen ci saf rek lu ngeen ci wax loolu la ñuy def rek Ah. voilà ñu tàggoo. waaw kon mhm. ñu tàggoo rek ñun ñëpp benn yoon man maa ngi gërëm Sofia di gërëm Soxo sama rakk yi nga xamante ni samay doom lañ samay xarit lañ waaye samay jigéen lañ. Mm. ndax euh, samay xarit lañ ñoom ma ma ma jàkkaarloo ñoom sax ngoon damay neex. <laughs> waaye xëy na tey sax euh, sëñ Ngañ sama avocat nga xam ne mooy sama maître laa Hadj Diouf léegi. waaw sëñ Ngañ Samb ngi koy ziar sama <laughs> nijaay sama xarit. Mm. moom xam na fi ma waxee du nuyu Ngoña Ndiaye ak euh, Ajaratu Ndiaye Samb Baba Ndiaye Big Up 313 Assane Matar Diop suba teel moo producteur mm. amal jàmm alors di ñaanal sama gars yëpp xéwal ba ba kañ jeudi wal waaw lan jeudi yow lënd di ngay liggéey nga naan lan alors c'était un immense plaisir de partager le plateau avec vous <laughs> Ndiaye gërëm naa la di gërëm ki nga xam ne mooy The Best mhm. mais spécialement di gërëm ki nga xam ne mooy sama rakk xol dëgg du neex maa ngi remercier aussi ki nga xam ne moo jaar ci vax bi kooku mooy lifestyle ku ci bëgg da nga def 77 467 30 42 467 30 42 bu daal di lay laal yi nga xam ne rek mooy yëfu africaine dëgg du neex. waaw maa ngi noonu tey nii lay tàggoowee man ak Papa Ndiaye dañoo demoon Dubaï. Eh, eh, eh. la ñu def. <laughs> Euh, demain nag dafa nekk jour bi xamante ne dafa spécial ci man. parce que sama taaw bu jigéen ci lay am 7 ans. macha allah sama doomu mag sës ci man rek. mel ni que sama doom la maa ngi koy ñaanal. Ndira Ndoye Ndira Ndooy Lebu Ndoye Maaline Marème Ndoye maa lay ñaanal gudd fan wér gu yaram. nga màgg ba tereel say bàjjen say tante di ñaanal aussi sa yaay macha allah jigéen ju baax la Sali Sonko di sama mm-hmm. mag yàlla na ko fi yàlla bàyyi tey bu melee nii ba taxaw ci plateau bi mën naa ne moom moo tax mm-hmm. ndax moo ma yar li nekk ci man yëpp moom moo ko def mm-hmm. def na ci yow yar de sama rakk ji <laughs> tooñ na la trop bëgg nañ la bii di ñëw incha allah eh, let's go ba lundi incha allah ñu bëggal leen Adji Mass jeeg bi soxo incha allah à la semaine Why you don't see you long time, Sénégal